am na ku ñuy wax Dof Ndeye xaw ma yéen a ngi dégg kàddu yooyu mu wax yor masatam ne ku fi génn ma def li yéen koy dégg mu koy wax procureur du ko woo duñ ko convoqué police commissariat sûreté urbaine duñ ko woo duñ ko woo dig parce que xaritu Amadou Sall la Amadou Sall doomu président de la République xam la may fàttali Côte d'Ivoire seen temps wu crise bi dañ doon jiiñ Blé Goudé ak Simone boo na ñoo àndoon ñu def les escadrons de la mort ñu koy fàttaliku loolu la may fàttaliku ba ma ko xoolee moom dem nañ gis nañ ko mu toog avec le fils du président de la République. ñu ne da recruter nañ ay am na vidéo yu recruter ay moom mu toog tey jii sañ wax lii ci réewum Sénégal dara du ko ci fekk maanaam justice bu ñu yor ak photo na yow daal nañu njort na yaa ngi ci beneen wàll mais boo nekkee si ñoom rayal tuumaal saaga Ahmed Suzanne Camara nee na Fulbert Sambou DJ Badji man ak Sonko ñoo leen rey procureur amul fit convoqué ko parce que c'est un intouchable pourquoi parce que il est du camp présidentiel kan moo njort wax ma sax xalaat njort def lii lu gën a ndaw li posté nañ ko li Ahmed Suzanne Camara wax ak li Fadilou Keïta la posté bu ci gën a garaaw kilifa yëpp gis nañ ko bu diineeg bu aadaag boo ci mën a gis waaye nag yëkkati kàddu réew mi ku ma am ndey ak ku ma am ndey moo fi nekk lii jaaduwul dina ko diggaale xale yi parce que du yor marché tam nii di yuuxu di kii daje xale yi ñu lay bàyyi noonu mu sedd nee na marché itam la yor fu ne lay dem di wax yooyu yëpp simba gaynde la lan moo ci responsabilité ñun presse bi aussi ñun ñoo leen di invité ñu toog seen plateau di wax wax yoo xam ne fitna lay indi ci réew mi te suba ñun ñuy artu di wax ne attention ça ce n'est pas normal buñ dara jëlee ne ooy waay Baba Alé dafa far dafa ànd ak on assume tout c'est pourquoi on est dans notre coin est dans notre lu ñu bëgg a wax toog fii wax ko mais tout le monde sait que ça ce n'est pas normal ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko mais li ma wax rek am fulla ji am fayda bi am fit bi ak jom bi ak ngor gi toog dénoncé ko moom la ñenn ñi am ñeneen ñi amuñu ko ci loolu lay tàbbi ci verdigu Ousmane Sonko verdict Ousmane Sonko ñoom xam nga dañoo jege lool nguur gi et le couple présidentiel ñoo ci wax mais liñ ci wax yëpp dama leen ciy dellu sin mais liñ ci wax dafay firndeel dëggal ne la justice est aux ordres kuñ fi bëgg a sànq bu la neexee ni jaarale ci justice ñi ngi tàmbalee ci benn article bu ñu jagleel Ismaïla Madior Fall ministre de la justice ñu jagleel ko article boobu la mu nekk article boo xam ne article bu doy waar la ñu jagleel ko ko mu nekk article bu doy waar lool lool lool ñu ne seen titre ñoom Islam Ismaïla Madior Fall et la procédure contre Sonko ñu ne en ce moment dafa am crise bu graaw bu am ci justice bi ndax verdict biñ jox Ousmane Sonko verdict biñ defal Ousmane Sonko dafa am dafa indi crise ci biir justice bi Ousmane Sonko sax tax na ci biir gouvernement bi ay collègues Ismaïla Madior Fall. ñi ngi diiŋat Ismaïla Madior Fall di ko yekk lu ne ñu ne Ismaïla Madior Fall toppul dossier Ousmane Sonko ni mu ko waroon a toppee contrôler ko de bout en bout dégg nga de le ministre contrôler ko de bu en bout may laaj dossier bu ñu yóbbu jugement juge bi kay may xool ci àqut laay taalam war a àtte ñu continuer ñu ne dossier bi daf ko waram feere contrôler ko nee na li ci njëkk lu tax ñuy may avocat wu Sonko yi ñuy fexe bay renvoyer di renvoyer di renvoyé wat procès bi loolu Ismaïla Madior Fall boo amoon fulla ak fayda loolu du am normalul est-ce que c'est droit procès du juge bi nga xam ne moom mooy toog di àtte mooy xool apprécier walla ministre bi moo ko war a jox ordre na ko bul renvoyer walla renvoyer ñoom de ñu ne Ismaïla Madior Fall ñu ngi koy reprocher ci biir gouvernement na ko lu tax nga bàyyi juge bii di Pape Mohamed Diop nga xam ne moo waroon a jiite procès bi ay avocat Ousmane Sonko ne kii warul mënta juger ndax dafa taqe ak mambay Mbaye ñeen ñu lu tax mu nangul ay avocat Ousmane Sonko ñu fexe ba Pape Mohamed Diop ñu jële ko ci jugement boobu ba mu mujj a ñoom ñoo wax seen article ñu ne Ismaïla Madior Fall dafa comporté wu ci procès bi comme un citoyen jëlul ay matuwaayam en tant que ministre de la justice pour téye dossier bi ñoom li ñu bëggoon ci dossier bi ñu am ko joxewul instruction joxewul ay ordre ministre est-ce que war naa mën a joxe ay ordre ci dossier boo xam ne jugement la bu nekkee ne on est dans une justice libre indépendante question justice libre et indépendante nga am sa parquet joxal say décision say parquet mais juge yu war a àtte ñu ne Ismaïla Madior Fall n'est jamais intervenu dans le déroulement du dossier procès dafa seetaan mu ne am na ci ay collègue ministre am sax yuy interroger ne Ismaïla Madior Fall est-ce que am na poigne bu Aminata Touré amoon ba muy jiite CREI yi yéen a ngi tooñ Aminata Touré fii la toog leeral ne amul magistrat bu mës a jox ordre ci lenn magistrat bu mu ko mës jox rek génneel wax ko Aminata Touré mësu ko def magistrat yëpp koo ci gis ba ci ndaw Alioune nee na c'était le meilleur de la justice parce que daawul joxe ar daawul immiscé wu ci ay dossier dem ba di ko tëkkaleeg ne poigne bu is bu Aminata Touré amoon Ismaïla Madior amu ko <laughs> suñu grand bi Madiambal jël xalimaam ne Ousmane Sonko war na sant yàlla ndax verdict bi ñu ko jox verdict bi ñu ko jox. duñ ko jox sax journaliste yi nga xam ne ñoom la ñuy gën a yóbbu diffamation verdict yu gën a sévère lan leen di jox te pourtant ñoom mën nañu wax ne am nañ la droit à l' information nee na même homme politique yi nga xam ne yóbbu nañ leen tribunal ci diffamation amuñu verdict bu seddee nii te nee Ousmane Sonko nag bu nekkee ne dafa am verdict bi li ay partisans am ak yoonam mobiliser dal ci kaw justice bi la def pression ci kaw justice bi. moom ma jëmmal de ne Ousmane Sonko respecté wul justice faalewul magistrat da leen di menacé doole da leen koy def mu ne waaye si ci ci verdict bii ñu génne nag hmm, état moo ci am gàcce est-ce que c'était un procès entre Ousmane Sonko et l'État du Sénégal wala un procès entre Ousmane Sonko et Mame dans le cadre d'une diffamation. xam nga des fois da ngay wax feeñ lii mooy wone ne ñoom ku bëgg a sànq si justice sànq la ñooy tànn juge ñooy def lépp teg ko jox ko na ko defal verdict bii ñamal ne li ko gën a jaaxal. moo di mbir yi niñ ko taf tafe taf tafe boo xam ne tey na xel ndax juge bi dafa toog rek ñu indi Sonko ñëw rek sur le champ mu joxe verdict nee na loolu dafa tey xel lu tax juge bi dafa ko délibéré maanaam délibéré bi. pour préparer la motivation nee na lu tax defu ko délibéré délibéré bi xam nga lu ci jublu mooy dem toog après ñu waxtaan seen biir harmoniser président ne lii laa bëgg ñu defal ko mu bëgg ci délibéré bi loolu dong moo taxoon ñuy ñuy wax ne lu tax yóbbuñ ko délibéré mooy le temps de voir quelle est la direction que le président veut vraiment qu'on sur ce dossier mu ne lu tax juge bi joxe tout de suite verdict mu ne dafa mel ni juge bi dafa yàkkamtu woon pour joxe li nga xam ne moo di verdict bi nee na ay assesseur mi nekkoon ci wetam sax laaju leen lu kenn mësul gis nee na procureur li parquet bi wax réquisitoire am faalewu ko sax juge bi nee lu procureur wax faalewu ko sax ñu tudd Mamadou Yaxam Kayta juge bi nee na juge bi tenirul compte ci wax ju ñaaw ju Sonko di wax justice saaga yi muy saaga magistra yi waaw procès bi procès diffamation la woon wala procès de Sonko contre la justice loolu kay c'est simple procureur am na sañ-sañ moom ne convoqué leen Sonko ngeen téye ko Pape Ndiaye mi nekk jamono yi seen suñu xel dem ci moom lool topp nañ ko pour outrage magistrat jeter le discrédit sur les questions judiciaires Sonko ba muy wax ba tey jii ci justice magistrat yi di ko dégg li ma ci gën a jaaxal nag mooy UMS Sonko rek lay tontu UMS li fi des bien sûr parce que UMS depuis Téliko UMS dee na UMS li fi des Sonko rek lay tontu Mansour Faye da nee na. les magistrats c'est des politiciens encadrés gore président la kenn kenn sañu koo tontu Moustapha Diop nee na leen les magistrats c'est de petits magistrats de rien du tout ministre Macky la UMS sañu ko tontu te fii ba ñu génnee rapportu Cour des comptes interview Mansour Faye na leen de vulgaire politicien encagoulé dégguma ci benn réponse yu bees ñu ne juge bi ba muy àtte Ousmane ko dafa war a tenir compte ci saaga mi saaga justice beeg magistrat yi ak nit ñi dee ku rey nit ñooñu Sonko ak dégâts yi ak trouble yi ku toj fa te jaamu wala force de défense de sécurité la dama bëgg je veux que dialectique bi may def ak yéen nii pour ngeen di mën a comprendre bu baax a baax a baax a baax à quel niveau ils sont d'arriver mu ne juge bi nga xam ne moom moo jël dossier bi di Mamadou Yaxam Kayta amul jot sax liir dossier bi amul jot lire dossier bi liirul sax dossier bi xamul dossier bi lu ci nekk mais fàtte xaju fi ba ñu ñëwee si jouru procès ay avocat Ousmane Sonko génnewuñ certificat médical juge bi ne du ko laal du ko xool ay avocat Ousmane Sonko ne il faut greffier bi mentionné ne tribunal bañ na jël certificat médical bi am na wala amul dégg ngeen met Clédor Ciré Ly wax ko fi tribunal bi na d'accordul ci loolu moo am ay avocat yu bees yu constitué wu défense bi bëggoon renvoyer parce que certificat médical bi c'était pour un renvoi du procès kan moo leen ko bañal bu renvoyé woon procès bi kay moom dina am temps lire dossier bi kan moo bañ na du renvoyé procès bi du c'est le juge ba ñuy wax loolu sax la commencé di liir moom la ñuy reprocher kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko Gabriel bi continué ba tey de nee na les délits connexes du parquet faux et usage de faux en écriture publique Mame Mbaye dafa porte plainte tam Ousmane Sonko pour diffamation parquet jël procureur jël du kii bi de <laughs> non Sénégal c'est du jamais vu jël plainte bi na ko non Mame Mbaye porté nga plainte mais am na yoo fàtte man maa ko ci yokk toppee ko Ousmane Sonko. te ñu ne c'est une affaire privée yokkal ko ci faux usage de faux procès bi diggante parquet la ak Ousmane ko walla diggante Mame Mbaye Niang la ak Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang moo ne Ousmane Sonko da koo tuumal dama koy yóbbu ci fu ma xam ne doonee benn ma xam nekkatul sax benn ma xam ne genn wàll la léegi foofu genn wàll mooy ñi ñi nga xam ne nekkuñu dañuy singali alors léegi mu def loolu procureur jël moom yokk ci pour gën koo chargé gis nga faux euh, usage de faux en écriture publique bi xam nga lan lañ ci jublu woon gis nga bu ñu ko condamné woon pour loolu nangu mairie Ziguinchor loolu lañ ci jublu woon xam nga fii loo fi tëgg rek gars yi fecc nañ ko ba toog. grand bi de nee na yaa xam Kayta deful procès un simulacre de procès maanaam lu xaw a niroog procès la def ndax kenn mu son xalaat sax ne moom mooy jiite audience bi Pape Mohamed Diop moo ko waroon jiite mu dem ba dernier moment mu désister lu tax mu désister mu ne point d'interrogation nee na yaa xam Kayta mi àtte dossier bi. xamul ci procédure diffamation dara moom moo ñëw ne nangu na jël dossier bi amul expérience amul dara <laughs> non c'est nee na dafa juger dossier bi comme affaire flagrant délit yamuñ ci loolu yëpp de léegi nag ña ngay tuumaal walla sosal parce que man sosaloon na lañuy wax mënu ma ko jàppee dëgg ndax dañ maa sosaloon man affaire lu DJ Bat di filer Sambour lié à l'affaire Papa Alé euh, téléphone à parler fenn kese fenn kese mais nag man xam bettuma woon quoi je me suis m'attendais pas je m'attendais ñu dem nag. pour jéem a justifier verdict ba ak Mamadou xam Kayta na mu doxalee procès ba nee na bu ñu xoolee Khoureyssi Ba di avocat wu kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba mu yëgee ne changé nañ kii jiite kii bi dafa sar xole kontaan nee na loolu rek c'est suspect c'est suspect tey na seen xel mu ne Mamadou Yaxam Kayta mi juge bi dafa am ay relations familiaux ak ay responsable Pastef da ngay tuumaal de am na sax boo demee ay lien ak Sonko par alliance ñu ne soo demee si page Facebook gu Mamadou xam Kayta yàgg na faa affiché ay propagande pro Sonko yum gaaw effacé neen 2018 sax kokkali woon na Mame na Niang nee na loolu yëpp nag pour ñoom jàpp nañ ne Mamadou xam Kayta dafa nekkoon en mission commandée maanaam génne verdict bu sedd pour Ousmane Sonko ñama <laughs> ñu ci de ñu wëlbatiku joxoñ baaraam Moustapha Fall nee na mooy président juridiction bi ñu ne kooku dafa toog seetaan ñaaw téef bii Mamadou Yaxam Kayta def car moo waroon jël mbir yi ci loxoom ndax magistrat yëpp jaaxle woon nañ ci lu tax Mamadou Yaxam Kayte di jugé lu mbir mi ndax nëbbul par parloo politique sos la wala dëgg la man damaa jàpp ne comme sosoloon nañ ma mën nañ sosol ku ne ñu dem ci sax commence dañ salte ñu ne juge bi am na ay antécédent ci vie privée nañ jël xool niñ ñome ñun mujjee nome nii nañ xool ku nekk sa vie privée nañ ko xool kon loxo nag gémmiñ ndax am na yu bari yu fi xale yi génne wax naa leen man en matière de vie privée man dama sip yoolu su may wax ak nit damay wax ak moom par rapport ak acte yi muy posé mu dugg ci domaine boobu ndax njot naa ne jàmbal bëgguñu duggul ci vie privée naa ne procureur de la république bëgguñu dugg ci vie privée njot naa ne baaxum bëgguñu bëgg dugg ci vie privée ne loolu yépp nag dafa indi malaise ci biir justice bi